tey fi mu toll nii wax nga ci Lac de wax nga ci yeneen mais dama bëggoon ci yenn combat ñu ñëw ci tuuti parce que gis nga làmb ji fi mu toll nii euh, dañ doon wax ni làmb ji mu ngi ci crise mu ngi mais yàlla suñu borom mu ngi suturaal ba làmb ji fi mu toll nii euh, bokk na ci combat yu baree bare taxaw na champion yu bari yi ñu yaakaaroon ci làmb taxaw na boo ma doon indil combat Gris Bordeaux wala Bombardier ak ki nga xamante ni mooy Balla Gaye tey lan nga ma ciy wax. non combat Gris Bordeaux. ah ah Bombardier ak ak waaw maanaam ñoom ñaar seen combat. am leen di leen nuyu ñoom ñaar ñoom day grand yoo xamante ne ndeysaan ñu baax lañu Balla Gaye di suñu rakk Bombardier di suñu mag di doon mbër yoo xamante ni ñëpp daal jox nañ ma cër. ndax ñooñ daal ñëpp jooñ ma ku ma ci gis da ngay mel da nga may bëgg a for wan ndax àddina noonu la booy booy yë boo yëgee nit nit yëg la Sénégal noonu la kenn joxul kenn nit comportement dafa baax ndax yàllaa ko njëkk a santaane di leen gërëm di leen ñaanal di naan combat boo xam ne daal tey lu ma ci mën a wax daal am de di leen ñoom ñëpp samay nit lañ daal am ndax bombardier yaram ak comportement moo taxaan mu jëlaat bombardier am jox ko revanche am na fi mbër yoo xam dañ naan dootuñu bëri waat ak mbër te mbër yi ñuy bëri waat dem nañu ba ne bëgg a nekkaat roi des arènes lamb noonu ñun ñooy mayante xaaj Doudou Bakar Sarr bëri naa kee vingt fois Mbaye Guèye bëri kee trente fois gis nga yooyu lamb bu ñu koy nañ ndax dañuy mayante xaaj fii kenn kenn ku yàlla dimbalee fi nekk ay mbër mi dafa mën a xeex ak mbër mi day fempi te ëllëg dañ koy sempi loolu amul amul njariñ nit booy bëri da xam ne yàlla moo moom mooy joxe ndam xool ku ko neex jox ko mën nga dem ba ci làmb ji sa am déboîtement wala nga am problème mu bopp wala dara nan nga dañuy jël kee jox ko làmb mu ñib mi ngi noonu moo tax loolu yàllaa fi ne kenn joxul sa bopp ndam yàlla mooy jox ndam yàlla nu mu bindee nit ñëpp dañ fiy fan mais boo demee ba bëri say nit na nga ñu may la ba di la xam tey mu nit bëggaatee revanche da ko koo war a jox waaw dina ñaanal nag bombardier. xam naa ni na la dëgër de. non du loolu ndàmb la ndax dama daf ma daan ndax ba may daan sama mbokk dañ ma indi mu juum ma def erreur boo xam mu daan ma mu metti samay mbokk nit nag bu def raate dafa war a jox nit revanche bu dee gor. mais nag wax dëgg Batika wax dëgg nag la déggee de moom fi mu toll nii. dépassé na la du sa morom ci làmb. non déggoo li ma la moom bu dégg question la déggee bu ma dépassé ci làmb loolu man du ma du ma concerne moom la concerne ndax loolu amul benn njariñ ay dépassé naa Batika di bëre ñoo xam loolu amul njariñ man nit bu ma dépassé ndax làmb mënoo koo bëri te doo doo doj coono doo dem ci sëriñ am de mi ngi noonu ku muy bëreel tey sëriñ yëpp dañ fay taxaw def mal ma diw takkal ma loxo yi yeewal ma loxo yi am de mais boo mënee mbër bul dem ci sëriñ taxawal rek am déet mais wala mu jox ma ci am na yeneen ñoo xam ña nga sa écrire waaro boobu noonu ma attaqué ci kenn duma ko daan ko moom mu ñëw nu ma waaw mi ngi noonu lambal ma kenn waaw ma waa ñu ma mën mbëri écrire waalo bëri na mënu ma ko wax écrire waalo ña fa ña tey bu ma la dëggee daane gën a ko ma ma ñëwaat di tëkkul nit foofu dañ naan ki dañuy jéem a dañuy xanaa waalo ma mën ci monde bi ñooñu duma ci laaj kenn ñoom ñoo may laaj na ma jéem a indi foofu kenn ma laaj ko ma fi laaj dañuy dañuy woo ni mu lay jaay grande tête wala grande oreille laajootuma fa kenn ñoom bu ma bëree la dëgg. waala moom liiru jaan rek nga fa mën a jël. pour la dëgër jël. liiru jaan soxla non liiru liiru jaan ma ko. billaay bul bul def débat bi bo laay bañ a dégg. kooku laay bañ a dégg. billaay bu mag dafa xew. <laughs> jóge kooku xewul deful dara. dégg am de da nga naan champion dama réer le mooy champion dama réer le loolu dafa ko war a dagg ay champion dama réer le luy réer le nit ñun suñu koor yaram suñu ko koor sax réer na te wari jiwuñ ko suñu koor mooy yaram réer na te wari jiwuñ ko gis nga yooyu ñu bañ nit da ngay gëm yàlla ay eh, boobu réer la dañ ko sàcc non waay dé bay dégg sàcc mooy réer kenn sàcc yooyu yëpp ay dóor la rek martoom la yor rek bu 9 kilos ah ku mu ko dóor si gars yi nga xam ne ay 45 ans 60 ans seen seen yaram du atténuement ku mu ko dóor sa cerveau dem mu jox la yooyu na bàyyi loolu na dem xel koom bay ji. na dem xel koom bay ji bu may dem naa ko yóbbaale ko na ne na doon taalibe bàyyi lii muy def du wéy. <laughs> naa woo Balla wax ko lii muy def du wéy na dem liggéeyi na ànd ak man ci xel ko na dem liggéey liggéey tey moo gën door bi yii du wéy yow xam nga loolu du wéy barke ndey bàyyi du woon affaire dóor yooyu dafa bàyyi loolu waaye muy def ak leelal bi. Badika daa eh, de. bon leel barke Rus bu leeroon bàyyi karaw gi boo leen gisee ñuy sàkketoo ndel am na lu si biir dañ koy dëbb yow ñëpp a leel. dafa leel dafa leel yow kon yow liiru leel bi dem bu yàgg. Eh, lii lu wattu ba def tere fii ñetti tere xaw ma non loolooy black force bi da koy def ba mu xam ne da ngay mel li ndel fekk dafa leel billaay ñoom ñëpp kenn amatul bàyyi sa man rek maay bàyyi sama karaw nii nga di ko gis ne billaay gis nga ko sëq billaay ñuul kukk amul lu weex ñoom ñëpp leel na yaa ngi liiru jaar bokk day te bokkale bàyyi de yooyu li la leel bokkul boo xoolee yëpp nga xam ne tey mën nga dem nga xam sa sa jëw wala kii bokkul dafa am ñoo xamante du ñu nitu karaw mais boo xoolee sama karaw nga xam ne bokk ak ñoom Lirou Diane mag la Lirou Diane mag la làmb bëgguma sax di ko débat foofu man dama bëgg ñu jox ma ay mbër ñu fi nekk bëri nañu bu baax a baax a baax bëgguma sax di tur seen tur ndax boo tuddee seen tur yi bu ñu leen naroon a bëri dañuy jéem a ah, comme bi koo laaj mu xeeb la xam nga mi ngi noonu moo tax du bëggatuma laaj kenn quoi Sénégal koo laaj mu xeeb la ah mi ngi noonu loolu moo tax du ma si bëgg a laaj kenn si koraan damay toog jàpp sama ñàmm mooy ki nga xamante ne yéen ñaar benn ngeen euh, ku la ku la bëgg a ku la bëgg a jot sax da koy laal muy Papa Sow gannaaw bañ ko dàqee écurie Fass mu jógee écurie Fass ñëw créé écurie boppam muy jàmbaar Wrestling Academy euh, laal xale boo xamante ni keroog gis nga Maris Ndiaye keroog bi mu fa ñëwee maara deytaale xale bi ba max na ko dóor sax nara nag koo def xëpp na ko ndox tey combat boobu fi mu toll ni bokk na ci combat yoo xamante ne àdduna dañ koy xaar moment bi bu fekkoon bu fekkuloon ak mbas mi euh, dañ naan bay woy na mbuus Papa daan na Siteu wala Siteu daan na Papa Sow boobu fi mu toll ni fi nga ko tegoon jël sa loxo teg ko fa bëgg ko est-ce que yaa ngi ko fay teg ba tey waaw tey lañ fa gën a teg ndax combat boo dee xool Papa Sow dañuy yaakaar ni man dañu bokk koñ war Papa Sow ñun bokkuñu Papa Sow sama rakk la Ousa Sow man seen kër lañ ñokk ñun ñëpp moo ñu jàngal bëre man biri am de mais neem si yàlla mëxëri yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana am de ñoom ñëpp tey Ousa moo ñu jàng bëri ñu nekkoon ñoom Papa ñu dëkkoon ñoom laay jee ñoom si boobu man xaa ngi dem daay di ñëw kooku Papa Sow tey bu ma yaakaar ne dañu bokk koñ wala doo bokkuñu Papa Sow ñoo kër ñoo bokk lépp fu bakkanam demee bu sama bakkan defee ma xam ne du ma gor loolu na ko nit ñëpp xam déggoo li ma la wax amul xuuxalaate wala di nax nit ñi wala di bokkul Papa bu deful lu normal déggoon mënoo koo wax ci Batika dara ba Papa Sow ni ma léegi la moom xam duma ma jëw nit man je parle en haut ñëpp may dégg oomul jëw nit bu deful dara dama ko koy dalaajal dam mu dégg ko baax a baax baax Papa Sow fu muy bëre wala dem déggoo ma nit mënuma ma fa tee bañ a dem maay dem yóbbu ko ca làmb ji lu am mu am bu ger mondiale jotee ma indiwaat ko bu lu ci am ne ndax dañu Ousmane mooma Papa Sow sama rakk la ñooy ànd suba ngoon guddeeg bëccëg booba làmb amul mais day bëre xale bu weex xale bu mën a xeex. waaw oh, dëgg la day bëre xale bu weex bëri na ñoom ñaar mun naa ni daanaka zos sax moo leen boole kii dóor na zos mu daanu euh, kee bëri naa ak zos ñaar yoon daan. waaw dëgg la xam nga làmb moom am de làmb dafa doon loo xamante ni ah, xale da ciy daan mag mag daan ci xale. Hmm. làmb daal luñ loo ko mën a wax daal tant que fin jéego la rek fa âge jot na mën nga daan ku ne. baabooy booy retraité am la daan nit. kon nga xam ne làmb mooy loo xamante ne entraîné téye sa bopp jàpp sa ñàmbur déglu conseil nit ñi ñu tekk tekkaaral waaw ah, yàlla bu lay may da lay may ba heure bu ko neexee rek. combat boobu loo ci gis. Papa ah. Sow waaw di combat boo xamante ni di ñaanal Papa rek fa ñu nekkoon ña nga fa ba suñu jon tey yàlla may ko ndam lu sedd guyu ñu jël ndam li indi ko fii parcelle. yomb ci Siteu de Siteu waaw non du yomb si Siteu du non dëgg la Tarkinda bu ma déggee Tarkinda rek tàcc tàccaaral day ñëw. tacc taccaaral xam nga yooyu boo ko déggee ñoo fenee maanaam bu loo am doole sa doole day waaj dafa am lu ne ci biir déggoo li ma la billaay wallaay taala loolu moo lépp loo fi gis mi ngi fi ma xamal booba moom tarkindaa yi ñoo koy ñun tacc taccaar yi ñoo koy indi barke alxuraanu karim amuñu lenn loo xamante nañ fi am xel ñaar wala dara ñun nag du ñu tooñ nit du ñu dépasse ñu def dara mais képp koo xam boo ñu fa fekkee ñu toog wax ñu dara billaay wallaay taala dinañ xam ne sëñ Tuubaa lañ yaakaar barke laa ilaha illallah ñun noo loo lépp rek loo ci indi ñun nag tooñuñu kenn saagawuñu kenn torox làmb bu jotee ku nekk wax Papa Sow bu amee combat su ma ci waxul man duma ma gor man su ma amee combat bu ci waxul du ci gor yàgg nañ jëf lépp ay mbapat di dem di ànd di jeex jàppante waa Pikine ak lépp am de yooyu yëpp problème yoo xamante ne du ko ci du ñu tooñ mais nag boo ñu tooñee ndax ragal yab yàlla la ñun ragaluñu ku yàlla bind dañ ñuy mag dañ lay jox cër wala charia am de ma xamala ci loolu nag loolu boo ko xamee da xam nit dul tooñ sàccuñu fenuñu njaalowuñu taxawaanuñu siraatal mustaqim la ñuy dund mënoon nañ fi di agressé def defuñu ko dañu xool làmb ji dem fa Papa Sow di suñu rax ñu koy ànd nu ñu usaa téye woon ba fas ne naa ko téye Papa ba kere ñuy tekk suñu ngéem waaw ndax bu ma desee ci làmb huit ans Papa Sow dese ne ko ci làmb dix ans hmm. waaw mi ngi noonu magante yi nag bëriwul mais génération lañu hmm. waaw